démb ba léegi koo gis rek nekk na ci mbégte ndax wax naa ne loolu sëñ Moussa Ka ne bu dul woon dem gi wolof nasaraanu te kon bi daay ñëpp dem nii ran bu dul woon dem gi mu demoon wuy ji la bëgg a wax ndax ngir doxal jàmm moom sëriñ bi ci yooyee jamono dafa dëkkoon fii ci mbokk bi ci Mbàkke Bawol bi mu nekkee ñoom dër dër jee convocation yi bari mbokk yeeg wayu jur yeeg ku ci nekk di ca tiit bàyyi mbokk gi fii pour may leen jàmm dem daaru marnaan bu mag dem sañ ci mbàkke bari ngir gën a jege ay wax te ñii mu wan leen indil jàmm indil jàmm aw askanam ba nopp la jëkk a def muy loolu mu ñaan sànq ci bayit woowu ne yàlla na ko yàlla defal jàmm ak jabootam ak i bokkam loolu rek mu ko taxoon jóg ndax bu fekkoon ne moom dafa dem rek wuy ji noonu walla mu lànkoon convocation boobu kon doon na nañu xam ne doon na gën a metti ci moom waaye doon na gën a metti ci bokk yi ba ñun ñi taxaw di waxit ku ne xam na ne ca jamono yooyu la suñuy wéyjur ak suñuy maam àgg ci sëriñ bi fekk ko jamono boobu fa la ñu jébbaloo ci moom àndanteeg moom kon bu fekkoon ne jamono boobu escadron bi nga xam ne dem loolu nañ ko teg foofu bi ak bi nga xam ne nekkoon na ci àll bi ñu wër a tundi mbàkke bari googu war a dugg ci moom attaqué ko waaye ngir bëgg jàmm moo tax mu ne ñokket dem wuy ji jàmm rek daal di kon jàmm jooju nag moo indi màggalu Tuubaa màggal gi jàmm rek ak i xéwal mu tekka nag ne bis bii de sàkkuwu ci dara lu dul mbégte jaamu yàlla gi ñun ñoo xam ne munta ñàkk nu ko koy def di ko ko santale yàlla ci bis bii waaye ba mu koy woote dane jàmm bu nekk ni ñëw santale ma yàlla ci xeeti bernde li ko dale ci gëléem ba ci ganaar lu ci waay man rek nga def ko ci bis bii màggal gi ñu bari dañ naan màggal gi mooy indépendance su murid bi may leen du indépendance su murid bi de màggal bi dafa am crise daal dafa am prise d'arme boo koy feete dañuy def prise d'arme ne woon maa ngi dem liggéey su ba ñëwee ngeen xewlu noo ngi xewlu kon mooy sunu xéewal